xanaa euh, nuyu imam gërëm ko ginnaaw bi ma nuyoo umma bi yëpp euh, ñaanal umma bi yëpp ñaanal réew mi ñaanal euh, sama dëkk Thiès donc imam c'est un intellectuel jamono bu nekk daf lay surprendre ci profondeur ay xalaatam informé wu bu mu informé ak xam bu mu xam dëkk bi Eh, moo tax jamono bu ne rek dañ koy bàyyi xalaat eh, tey jii rawatina tey jii aussi def na eh, discours xutba bu mémorable je le pense bien boo xam ne liñ ci mën a jàng bëri na ñun en tant que politique aussi li liñ ci war a mën a jàng bëri na ñun aussi en tant que maire li mu wax ci dëkk bi jafe-jafe dëkk bi liñ ci mën a jàng bëri na xanaa gërëm ko ñaanal ko bu baax a baax a baax. semaine dernière dama def benn visite. ci école polytechnique ak toute mon administration ak le bureau municipal dama seeti le directeur de euh, l'école polytechnique bu cees ni ko feu tricolore dañ ko bëgg indiwaat a Thiès mais au lieu may dem jël xaalis bu bëree bëri di ko commander à l'étranger école polytechnique bu cees am nañu xereñ teefu jàppale ñu ñu indiwaat ay feu tricolore feu adapté ils en ont déjà réalisé démb la ñu waroon a ñëw présenter ñu le feu bi nga xamante ni concevoir nañ ko jàpp nañ ni mën na adapté wu au niveau de Thiès donc pour vous dire que loolu imam euh, daf ñu ci fekk fekk nañ ci ñu liggéey suron un projet dans des délais raisonnables pour que Thiès ñu réorganiser waat ko avec des feux tricolores ak benn brigade de cinquante volontaires yoo xam dans un premier temps bëgg naa ko recruter yoo xamante ne organiser organiser yoon wi barki démb dama toog bu guddi ma génn sama oto donc ma ñëw ba ci El Hadj bi fekk benn accident bu méttee métti te obligé ma gaare ci guddi gi de woo sapeur toog fa mais y avait personne du policier du mairie c'est cette situation li kara fekk da ngay dem dans ci biir Thiès benn problème am fa mais dara luy mandarga lu mën a jàppale askan du fa du fa du mën a ne du un agent de la mairie du police du gendarmerie du dara population yi ñooy organiser wu ñoom ñooy mujj sax di gérer circulation bi je di que benn amuñu ay moyens mais suñu amoon cette brigade volontaire cinquante ak les feux je pense que ñu mobile jënd ay oto jox leen ay surtout ay ay L200 ñu am mobilité boobu je pense que bu trafic bi méttee ci benn côté ñoom dinañu mën a ñëw ñu jàppale population yi à huit heures xale yi war a jàngale ay buntu lycée Malick Sy dinañu ñëw ñu taxaw ñu jàppale loolu c'est des choses yoo xamante ni ci ay délais yu raisonnable bëgg nañ ko réaliser incha allah. woote jàmm bi day ñëwaat toujours euh, lan moo ci seen taxawaay en waaw lu la waaye mënti wax développement ci jàmm lañ koy tabax développement ci jàmm lañ koy tabax donc euh, suñu réew yi suñ ko tojee eh, soo demee dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire ba mënee ay dëkk yu mel ni ay Sierra woon dëkk yi nga xam ne yëpp xam nañu instabilité ñoo ñu ñoo la mën a wax lan mooy jàmm mook santé ñooyam boo wéeree di dox say soxla da yaakaar ni ñëpp ñu ngi ci jàmm boo feebaree boo fanaanoo bëñ buy metti boo xëyee Euh, di nga xam lan mooy jàmm ci yaram donc waaye lenn rek ma koy fàttali aussi jàmm moom li koy suuxat di ko dimbali mooy ak maandute mooy ak njub liggéey moom loolu imam da ci war a ñëwaat ñëwaat ci ñëpp ñëwaat ci <laughs> ce pays a un seul problème les gens ne man le fekk que ma nekk maire de la ville de Thiès c'est vrai que gën na mu ubbi sama bët ci yu bëree bëri suñu pays yi mën nañu décoller suñu ville yi mën nañu décoller tubaab yi téyewuñ kenn téyewuñ ñun ñoo téye suñu bopp on travail pas assez bëgg nañ lu yomb ku ci nekk di gérer des intérêts de groupe des intérêts de personnel mais bis bu ñu ñimee dëgg ñu bàyyi politique politicienne ñu teg ko fële bàyyi ay kàcc ak lépp ñu teg ko fële ñuy xëy mobiliser wu ñu liggéey suñu dëkk yi dinañ développer ci kenn duñ ci jàppale. il y a assez de ressources pour développer ce pays de ressources humaines pour développer ce pays même ay moyens économiques yi ñu ngi fi. pour développer ce pays. Donc on parle de 7 mille milliards pour le prochain budget du Sénégal. Moi, si vous me donnez 5 milliards de francs CFA, je fais de cette ville de Thiès, ville boo xamante ni nit ñi dañuy joge si Afrique ñëw di ko seetaan si cinq milliards qu'on me le sur la table nit ñi dinañ jóge Afrique ñëw di seet ci ville parce que jafewul mais. tappale dafa yaatu ci ci réew mi maintenant sur les élections la date de ces dañ ko war a respecter dañ ko war a respecter élection suñu ko en tout cas élection présidentielle musuñu ko reporter Sénégal je ne vois pas lu jar ñu mën ko reporter il y des difficultés yooyu yëpp nag waxtaan la laaj yu gën a xóot yoo xamante ne responsabilités yi partagé la je pense que état bi li mu ci war a def boo ko ci defee yooyu yëpp yaakaar naa ni war nañ ko mën a surmonter